mbokk internet Dakar people yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar di leen jaajafal di leen baalu àq di leen baal àq di nuyu suñ mbokk internet ñi bàyyi xel dañu suivre saa su nekk mbégte la ñuy am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bi ngeen tànn seen bopp muy Dakar people comme ni ñu koy defee rek nee naa la sëriñ si lañ leen di toppal tey ñëw nañ fi nga xamante ne mooy parcelle. seet si fi koo xamante ne nii suñu suñu suñu suñu xarit la suñu lépp la muy Serigne Ndiaye Barxaama Niass macha allah tey fekk sañ fi nga xam ne mooy parce que dañuy waxtaan ak moom ci li nga xam ne ne moo nekk ci micro bi après ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi sëñ bi ñu ngi nuyu waaw ange bi kalimatillahi taamaati min kulli seytaanin wa haamati wa min kulli aynin laamati alhamdulilahi wasalaatu wasalaam xanaa man ursila rahmatan lil alamin uh, yaa booy ñu ngi lay nuyu di nuyu sa caméraman uh, Aïssa moom nag xam naa daa añagul waaye ñu ngi leen di siyaare bu baax yéen waa Dakar People di leen wax ne daal leen ak jàmm fii seen kër incha allahu rabbi uh, mën nañ soobu ci wax ji incha allahu rabbi bismillah ayca bisimilah noonu la nuyoo Serigne Serigne Ndiaye Barxaama Niass ayca sëñ bi gis nañ nga yor leket su ñëwee ci wàllum seet gi. waaw euh, man comme ni ma koy waxee saa su nekk yàgg naa ko wax te yàgg naa koo défier te it nëbbatuwuma man damay wax ne képp nit koo xam ne nee nañ kenn mënu koo gis ci seet moo xam nga nekk ci biir réew mi moo xam nga nekk bitim réew. ñu ne kenn mënu koo gisee seet ngir yàlla an nañ ma ko àndil lii yàgg naa ko wax ak lu sa mbir lëndëm lëndëm lëndëm lëndëm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ñun buñ la xoolee dañ lay gis ndax nag xool dafa bari ay façon ñun dinañ seet ci ram li dinañ seet ci leket gi waaye dinañ seet ci li nga xam ne moom mooy xam-xamu bidiw te loolu dafay nekk xam-xam yoo xam ne ni doomu aadama mënoo ko cee xool te doo gis ay mbiram loolu mën na nekk moo tax damay wax ni képp koo xam ne bëgg nga sa mbir leer la yaa xam nag fànn bu mu mën di doon incha allahu rabbi buñ jokkoo ci kàttanu yàlla ak mbaaxam li nga bëgg mu leer dina la leer te it sarax yi nga bëgg a xam di nga ko xam soo bëggee sax ñu wax la bés bi gën ci yow bés bi gën a favorable ci yow wax la yan couleurs yére moo gën a favorable ci yow bu dëkk ba nga nekk sax ñu wax la dëkk ba nga nekk ban sarax la dëkk bi laaj boo tax na yow say mbir mën a dox yow it ban sarax la sa jëmm ji laaj boo tax say mbir mën a dox loolu lépp dañ koy génne ci wàllu seet tasaare la ko ba mu leer la incha allahu rabbi waaye loolu moom fii rek lay xewee ci Ndiaye Barhama incha allahu rabbi képp ku ci bugg a am lu la leer bu ñu jokkoowee say mbir dara dootul la lëndëm incha allahu rabbi ci sa kanam ak li la weesu. incha allah loolu moom yaa booy foofu rek lañ ciy am incha allah jarul ñu ciy sori incha allahu rabbi waa ko ñu jàll ci leneen. ay ca na solo ñu jàll ci sëñ bi dañuy ñëw ci wàllum nopp. Mhm. nopp boo xoolee réew bi fi mu toll nii yaa booy li ma waxoon barki démb wax ko moom lay waxaat jamono ji sëy xare bu dar la te jigéen dañ ko war a teral dañ ko war a teddal te sëy jamono ji nit ñi dañ koo def guerre dañ koo def compétition te sëy du noonu waaye nag képp koo xamee ni nekk nga ci sëy moo xam nga nekk fu sori moo xam nga nekk fu jege dafay baax doomu aadama li nga moom dafay baax nga téye ko ndax jamono jii rek ngay gis jigéen te góor topp sonn ci defar ko ba mu baax nekk ak moom ji moroomu jigéenam tëlle fële ñëw liggéey ko nangu ko ci ay loxo te loolu am na fi kon nag damay wax ne képp koo xam ne tey bëgg nga yaag sa jëkkër bu yow yowmal xiyaam bëgg nga tey benn balaa ñuy agsi si noob sax damay wax ne man boo bëggee sax ma jox la loo xamee ni nii kenn du la takkal wujj bu yowmal xiyaam kenn du la takkal wujj loolu yàgg naa koo wax te loolu dañ koy liggéey fii boo tey boo bëggee ñu jox la loo xam ne boo dinga nga sëy ba maanaam kenn dem yombal xaam ci yéen ñaar waaye kenn du la ma sa fase loolu dañ koy liggéey waaye damay wax ne gis nga man moom noob yaa booy xanaa ma bañ a toog jàpp nit waaye képp koo xam ne sa jëkkër jaaxal na la di topp jigéen ñi di dox di taxawaalu wala bu liggéeyee ba wàcc fu ne mu dugg fu ne mu génn balaa nga am ci moom dara mu doon xare ba dara bu ngeen commencé waxtaan sax waxtaan commencé mujj ci xuloo kooku su ma ci jotee su ma la ko noobalee nem lay def man noob moom man damay wax ne man maanaam sax du liggéeyu parce que noob du lu jafe il suffit nga xam doomu aadama bi xam waxtu wi ñu jàpp ak noo koy jàppee ak fan nga koy jaar ba téye ko damay wax ne lu nit dëgër dëgër dëgër incha allahu man bu ma ci jotee dama la koy téyel ba dëgër këj dootul la rëcc li nga wax lay wax te ni nga ko bëggee noonu la koy defe incha allahu rabbi noom moom yaa booy fekk maa ngi fi man jigéen dootu sonn ci séyam te parce que man damaa bëgg jigéen ñi am jàmm moo tax ndax euh, ku nekk da nga koy xool sa yaay kon damay wax ni képp jigéen gu bëgg am sa jàmm sa séy ak salaam jokkool ak Ndiaye Barhama incha allahu rabbi dina la fa taaj taaj la ci jàmm te dara du xew incha allahu rabbi loolu moom euh, foofu lañ ci yem incha allahu rabbi euh, dinañ ci gën a yaatalaat xëy na incha allahu rabbi waaw kay. ci koo xam ne da nga koy liggéey da koy liggéey ba takk ko. Hmm. léegi jafe-jafe xam ko waaw xam nga xam nga lépp début boo gis naturel da cee baax. Hmm. sérieux da cee baax. ànd nag dina baax léeg-léeg nga dem ba ci biir ngeen def ay ñaan. Hmm. gën a am jàmm. dina am salaam ngir bañ nit ñëw yàq seen jàmm waaye début bi boo ci jógee def ci yenn mbir yi takk nit ki bu fekkee ni teel naa jóg moo it mën na koo faxas te loolu bu ko faxasee mën na andi problème te bu boobaa mbëggeel gi mën naa deñ moo tax damay wax ne début bi nañ koy rayante mu nekk loo xam ne dafay naturel après da ngay jëw taxaw def loo xam ne sëy bi dina am jàmm ndax gis nga yaa booy sëy jamono ji nit ñi dañ ko jàppee contrant sëy du contrat sëy duhut lu ñuy teste sëy duhut lu ñuy yund di xool dina neexam du neex sëy gor la ak gore benn sëy neexut ndax yéen ñaan yi ànd yéenay bëgg di xeex yéenay bëgg di xuloo yéenay bëgg di juboo waaye nag def ci ñaan ngir saytaane yi ak pexey noon yi daf ciy baax kon damay wax ne wàll woowu aussi lu am solo la woo xam nit ñi war nañ ci bàyyi xel incha allahu rabbi di wax ne daal daal sëy daal laaj na ñaan ndax xadina ci boppam nit ñi dañoo soxor fii ngay ni ak sa jëkkër ngeen am seen jàmm am seen salaam ñu gis ta soxore la ko boo sàgganee nag ne gawuma sëriñ nit ñi dem ci sëriñ toroxal la rek te bu boobaa yaay perte kon damay wax ne daal jàmm ci sëy fii ku fi ñëw di ko am moo xam mu yéex moo xam mu gaaw da nga koy am incha allah te man nag damay wax ne ku ma liggéeyal ku ne nga naan ma gisuma man ne la kaay jël sa xaalis. Mm-hmm. parce que man newuma ci ay caaxaan. Mm-hmm. loolu moom yaa booy euh, foofu rek lañ ci yem incha allahu rabbi ñu jàll ci leneen. am na solo macha allah Aïssa ki ñu toogal muy Ndiaye Barhama Niass. Mm-hmm. macha allah li mu wax am na solo ci sëñ bi day ñëw ci li nga xam mooy góor gu tële. ndax boo xoolee léegi Sénégal ji bëri fukk yoo jël. cinq yi dañoo tële. waaw yaa booy laal nga fa am solo nag. ndax kooku damay wax ne mooy wàllu impuissance sexuelle. ñun dañ ci liggéey garab yoo xam ne fu ne nañu def daf daf fiy dem ci àddina bi te damay wax ne tëli nag dafa bari ay façon te dafa bari lu koy waral parce que impuissance góor biir moo ko yor te doomu aadama yi ñii hémorroïde dina tax ñu am impuissance ñii ndoxu siti dina tax ñu am impuissance waaye damay wax ne bépp bu ci mën di doon ci wàllu impuissance sexuelle ñun bu ñu la joxee suñ garab gii kii mooy le lion de la maison gaynde kër gi moo nekk nii ñëpp a ko xàmmee incha allahu rabbi mm-hmm. damay wax ne képp ku ma ko jox te li ma la ci wax gisoo ko mm-hmm. andilaat ma sama butéel ma jox la sax xaalis parce que liggéey duut loo xam ne da nga koy làmbatu soit da nga koy mën wala nga ñeme ko wala nga ba ko mm-hmm. damay wax ne impuissance nag bu fekkee ne ndax doomu aadama bi léeg-léeg émori dina ko jàpp bu nga xam ne biir bi fu mu toll ngelaw da ciy ne muy ne di def air di jàpp wet yi te nga dégg biir bi di yuuxu yuuxu am doole yoo xam ni ndax air bi nekk ci biir bi te hémorroïde dina la jàpp bu nga xam ne yow doomu aadama bi loo lekk da koy bëgg a wëcc wala loo lekk lu mu tuuti tuuti da suur ndax sa biir bi mooy fees ndax air bi ci nekk te da ngay gis bu dee góor air boobu noonu dina wàcc ba ci naq bi jàpp sidit yi ba tax na lim bëggoon dootu ko mën a am loolu bu fekkee hémorroïde la nag kii la ñuy jël sachet bi am na ndox am na sachet bi lépp lu jëm ci wàllu hémorroïde moo xam hémorroïde bi jàpp la nga dem bay seere lu war a mot 3 jours 4 5 jours lii bu ma la ko joxee trois jours bu ko amee te dañu andil ma sama garab ma delloo la sa xaalis dañ lay faj hémorroïde bi ba mu taree ba mu wér carrément moo xam hémorroïde bi ci biir moo xam bi ci biti kii bu ñu la ko fajee ba mu wér ñu yëkkati le lion de la maison mooy gaynde kër gi jox la ko nga doxal madame di kontaan incha allahu rabbi te it ba tey moom wàllu impuissance ndoxu siti daf koy waral ndax da gis góor ñoo xam ne dañuy dem ba seen ndox ci boppam. moo dul amati yenn fer ferñeent yi ndax ndoxu siti ci deret lay daw day daw ci deret te dañ koy donn wante te ni muy dawee ci deret noonu mooy lakk sa deret ji bu nga xam ne dangay gis ñim dal seen wéy yi dafay ñuul ñenn ñi seen yaram yi def ay xub buñ lekkee jën di xasañu fuñ toll wala da ngay gis buñ même buñ sangoo ba génn sax di okkatu mel ni ñoo xam ne dañoo demoon geer parce que loolu ndoxu siti moom moo koy def bu fekkee wàllu woowu la ndoxu siti noonu lay téyee nit nag ba nga xam ne mën na la yóbbu wàllu impuissance te bu dee ci wàllu woowu ci ndoxu siti incha allah kii lañ lay jox wala ndox bi faj la ko ba nga wér ñu walbati ko incha allahu rabbi jox la kii nga xam ne moom mooy le lion de la maison ndax man njaay feebar duut da ngay ñëw rek ne ma dama feebar rek mën ne la am lii demal mm. dañ koy xool diagnostique ko ko mm. xool ba xam fan nga féete ñu fekk la fa faj la incha allahu rabbi teg la ci yoon ndax loolu moom faj moom xanaa nga bañ a ñëw fii waaye fii moom boo fi teewees li nga bëgg incha allah dafay dafay faju ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yaakaar naa yaa booy loolu moom wàllam faj moom ah, nañ am ci loolu incha waaw loolu ndax waaw kay ndax gis nga loolu ndoxu siti dafa dafa garaaw jigéen ñu baree ngi nii di ëmb seen ëmbër yi tuur ndoxu site ko waral parce que ndoxu siti ni muy lakke sa deret ji dafay dem ba yow bu dara ñëwee ci sa biir bi yow may jigéen du fa mën a toog ndax sa deret gi day tàng-tàng goo xam ne dafay lakk la fa waroon toog su ko defee nag da ngay gis ne ëmb bi daal di tuuru léegi nag nag am na ñoo xam ne daf leen di jàpp seen yaram yi di xub kooku bu fekkee loolu moo ko dal dafa am pommade buñ koy jox boo xam ne daf ko ciy diw di naan bii dafay wér carrément waxuma la tare de wér lay def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax wàll woowu loolu ndoxu siti daf koy def ndax ndoxu siti ci xeet lay da ko faj jooni jooni ndoxu dañ koy traité ba mu wér. incha allahu rabi képp ku ñu ci ñëwal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam sa aajo dafay faju incha allahu rabi loolu moom yaakaar naa ne lu leer la yaa booy incha allah mën nañ jàll eh, ci leneen incha allahu rabi. ok am na solo macha allah nee naa la tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy parcelle ki ñu toogal muy Ndiaye Barham macha allah neenaa la ndoxum siti hémorroïde moo ci gaaw da koy faj léegi léegi léegi génne lépp loo xam ne nekkoon na sa yaram ndax Aïcha boo xoolee ndoxu siti day nekk sa yaram di xub moo lay waye sa yaram di tàng sa biir di tàng ëmb boo ëmb mu tuuru wala mu yàqu amaana mën nga ci am doom sax mais doom ji du dund yàlla ci yàlla musal Aïcha ñëw leen daw si ci Ndiaye Barham macha allah mën na ko lool lool lool Aïcha Ndiaye ci li nga xamante ni mooy sarax ndax gis nañ léegi jamono ci changé na koo gis léegi mu ngi yor mbuusam di sarax amaana sax demu ci sëriñ mu ne ko saraxel lii ak lii ak lii xam nga yaabooy nit ñi dañoo war a bàyyi dëgër fit gis nga dëgër fit weesuwul ah diw démb de gént naa la rek nga fërëx fërëx yi rek dem jënd sa ñaari mbuusi soow ak sam ndox saraxe am na ñoo xam ne dañuy saraxe tëj di tëj seen bopp rek ñu gis nga sarax balaa la ko nit di mën a digal il faut mu nekk am xam ci wàllu bidiw ndax doomu aadama bi bidiwam ci nga mën a ñëw xool ko génnee ko xam kii ban nit la parce que ñeenti façon doomi aadama ñoo am ñii ndox lañ ñii safara lañ ñii ngelaw lañ ñii suuf lañ maanaam nag sa nature nature doomu aadama bi ci bopp ñeenti façon yooyu la mën a doon bu fekkee ne yow danga nekk nit koo xam ne safara nga ñu ne gént nañ la rek nga daw jënd ndox mu sedd ak soow saraxa yaa ngi tey tëj sa bopp kon mbir dafa am yoon làmbatu baaxut. Mm-hmm. man bëgguma làmbatu yaa booy gis nga man li ngay gis ne loo ma mën di àndal ci àddina su ko xamut xaalis nu mën di yem. Mm-hmm. su ma ko ko laal. balaa nga koo mën a def da nga xam sarax nag dafa garaaw. Mm-hmm. nit woo na ma. am jafe ci wàllu kayit. ay ati ati at ma xoolal ko génneeloo ko sarax kayitam yi génn. rek nag wax de. ma xool ko génneeloo ko sarax ay kayitam génn. kon damay waxaale foofu gis nga lu jëm ci wàllu kayit yaa man képp ku ma ci jokkool incha allahu rabbi ba xoolal la bu génnee la sa sarax nga génnee ko ñu jox la sa sangat kenn mën da wax ba doo ci jox ci kàttanu yàlla ak mbaaxam kon sarax na nit ñi di xam li ñu war a saraxe lan la buñ topp seen bànneexu bakkan xaddina dara du neen lépp loo gis dafa am yoon yoon nag da nga ciy jaar dem yëgg ci dëkk ba nga wàcc ko jaar ci mbooy gi bu boobaa nag yaa sànni sa bopp kon nit ñi nañuy xam li ñuy def kon donc sarax daal lu ñu war a seetlu la man nag damay wax ne boo ñëwee ci man boo xool la dañ la koy génneel ba pare wax la bés bi nga war a saraxe ci biir bés bi ñu wax la waxtu wi gën ci waxtu yi nga war a saraxe ndax lépp dafa am yoon loolu nag dañ koy leeral incha allah ba mu leer naññ ci kàttanu yàlla ñun bu jàmm bi ñëwee ci ñun kon yaakaar naa ne yaabooy loolu dafay baax day yombalal doomu aadama sarax daf lay yombalal boo li nga bëgg a jot yëpp nga jot ko te doo ci am benn jafe-jafe kon loolu moom yaakaar naa ne loolu leer na te man nit ñi bu ñu may déglu ci wàllu woowu kenn dootu def loo xamoon lépp da leer incha allahu rabbi waaw kay yaakaar naa kooku euh, mën nañ ci yem foofu incha allahu rabbi jàll ci la ca des. ay dégg naa ñu ne war nga boo waree am nga benn jour boo xam ne sax dañ ne war nga ci dee mais boo saraxee après affaire bi day. ndax sarax yónnante ci boppam sallallahu alayhi wa sallam daf ko digle. sarax mën naa fànq sax dee guy ñëw ndax dafa am doole parce que doomu aadama imaginel tey ñu génnee loolu benn sarax bi nga génn jox ko ki nga ko war a jox waaw kan ko jox xamoo ci ban situation la nekk loolu mën nga ko génnee ci loo xamee ni mën na la jural mën na la apporter des choses yoo xam ne dafay am njëriñ ci yow kon loolu na ci nit ñi di bàyyi xel bu baax a baax loolu am na solo nit a ngi ut liggéey ba sonn mënu koo am ndax lañ koy wax mu saraxe moom la nit ngi ne ci séem saa yu xëyee di saraxe di gën a am problème parce que loolu yëpp dañ ko war a xool xam ko man nag damay wax ne bu dee wàllu këyit bu dee wàllu ngay ut liggéey bëgg a déposé muy të bu dee wàllu ngay ubbi sa place moo xam sa hôtel la moo xam sa centre commercial la bu ci mën di doon bés ba nga koy def dinañ la ko wax wax la sarax ba mu laaj ba pare nag joxaale la kooku dinañ ñëw ci rek ci kanam kooku wax la sarax boo xam ne boo ko defee mbir yi dara dootu taxaw dafay baax te li nga xam ne moo koy doxal incha allah war bii dafay ñëw incha allah ci kàttanu yàlla kon dañ fi jàll rek beresteru jàll ci wàllu bayra ah, ay ci ñëw ci wàllum li nga xamante ne mooy ku tëju des fois da ngay xëy sa dara du baax nga génn uti sa dara du baax wàllum tëju waa xam nga tëju li ci gën a ëpp doole ñaar la mm-hmm. doomu aadama nag mën nañoo wax sax ba ñett mm-hmm. ñii cata di tëj ñii seytaanee leen di tëj ñii dañ leen di liggéey tëj seen wërsëg ndax ñett yooyu yëpp dafa am bu fekkee cat la moo tax rendez-vous boo am yaag nit mu foose mën ngaa dem bañ ne tey la rendez-vous mu oola ne la fomm naa wala nga wax ak nit bu am ci moom yaakaar wax ji far lu ndaw yàq ko wala tey nga téye xaalis ñu fay la ko léegi léegi léegi balaa ngoon xaalis bi mel ne lu naaw say loxo yi loolu cat moom moo koy def seytaane nag dina topp doomu aadama di yàq xelam di jaxas am na ni ñoo xam ne da ngay gis ni fuñ toog lu bon la ñuy xalaat fuñ toog yow ñu la gisee nii léegi léegi léegi nii rek lu bon la ñuy xalaat ci yow ndax ñooñ seytaane dugg na leen ba yëgg foo xam ne ci ñoom mënatuñoo xalaat ci nit lu baax boo tax na même da ngay gis ñu war a xëy pour déposer ji dara pour uuti liggéey sax naan est-ce que man bu ma demee dina baax est-ce que jar na may dem teemaa fomm parce que seytaane moo lay jaxase ba dootoo xam li nga war a def nit nag dinañ ko jàpp tëj wërsëgam ba nga xam ne fu mu mu yàqu bu déposé woon moom ak fukki nit ñu jël ko bàyyi ko loolu dina ko def waaye damay wax moo xam bu mu ci mën a doon laa wax moo xam cat moo xam saytaane moo am liggéey fii boo ñëwee dañ lay sang ba nga set jox la garab yoo xamee ni incha allahu rabi bu dee cat dina dëñ ba loo mën koo jëriñoo bu fekkee ne seytaane la moom buñ la suuree fa lay tàqali ko yow ndax ñi ngay gis seytaane yàlla ñu ci yàlla musal dañ lay sang mu dëñ ci yow bu fekkee dañ la liggéey dañuy raxas liggéey bi te buñ ko raxasee ba pare nag kala ko def liggéey ba day këpp ci koom loolu yëpp dafa nekk mbir yoo xam ne ñun dañ koy liggéey am ci résultat yoo xamee ne nii kenn du ko naataable te damay wax ne mbir moo ñëw ma xool ko vérifier ko boo xool ko bañ génnee sarax yi buñ ci liggéeyee ci kàttanu Yàlla ak mbaaxam kenn mënu ñoo teree am ndam ci loolu yaa booy laal nga laal nga lu ama am solo ndax loolu nit ñu bari moo leen di yàqal te nan nit ñi jóg defarwaat ndax jamono jii métti na te doomu aadama il faut ngay def luy neexal sa yaram gannaaw bi nga ut dinee lu wàllu cat dinu wàllu seytaane ci yow dini li nga xam ne mooy tëju tëju ci yow dafay baax nga ut bayre ndax doomu aadama di nga mën sa liggéey sax te nit ñi duñ la jublu dangay gis fii ñoo xamee ne nii dañuy téye seen i diplôme nekk ci société gën faa mën liggéey te lu ñuy wax ñoom la ñuy mujj a wax. ndax ñàkk bayre ñàkk xorom na nañ ci yàlla musal doomu aadama da ngay am bayre saf sàpp ni suukar ak xorom nga xam ne saa yu nit ñi xëyee di wax ci yow waaye day ànd ak kaaraange nag man dama lay jox kaaraange ba kenn du man ci yow lenn lenn lenn wëlbati ko jox la bayre boo xam ne foo dem nit ñi jublu la te boo waxee ñu déglu la te ku la déglu mu dugg ci xolam mu jëriñoo la kon loolu moom yaakaar naa ne allah allahu rabbi fii képp ku fi ñëw di nga ci am lu sedd sa xol incha allahu rabbi am bayre te amoo kaaraange mu dangay ngay léegi ñu tudd la léegi nga fay léegi am na ñoo xam ne yaa ngi leen fi doon dégg kenn xamatut fuñ ne te bu pourtant ñu ngi dund ndax ut bayre te uutoo kaaraange erreur la mu ngi mel ni nga tabax sa kër ba mu baax ñëw dugg tëdd te defaroo ci buntu ma ku ñëw day naaw dugg ci biir kon bayre am ko baax na waaye kaaraange baax na ñun bu dee dangay takk ñu jox la loo xamee ne nii ku la liggéey liggéey ba këpp ci ko bu dee da ngay sang ñu jox la loo xam ne bu la neexee képp ku jóg di la liggéey jaan màtt ko ci yoon mu dee loolu am na fi de kon kaaraange moom xeet in ciy liggéey moom doomu aadama bépp bu la song bu la baxul moom danga koy jaale ji loolu moom lu fi am la moom kon yaakaar naa loolu <laughs> loolu leer na de te incha allah képp ku fi ñëw di nga ci am lu sedd sa xol incha allah war a di yàlla ma yóbbante ci yow bi ma ne sëñ am na ko ma mhm. yóbbante ci yow nee na moom mhm. waaye pour mu jug dem ci place bi mooy problème ah, loolu man amoon naa ci ndaw soo xam ne biir ministère la nekk di liggéey dañ ko def ay mbir bu nga xam ne ñemeetu da xëy te loolu dafa am nag waaye damay wax ne loolu li koy waral mooy yenn liggéeyu bon yi daf koy waral mhm. waaye à loolu itam tey euh, rab dina waral loolu aussi waaye damay wax ne moo xam bu mu ci man di doon incha allah bi ñun bu buñ jokkee ak yow dinañ ko xool te dinañ xam ban façon la ci mbir yooyu noonu bu dee liggéey ñu raxas ko ba mu set ci yow bu dee rab ñu dini ko carrément ci yow ba mu set ba pare place ba nga xam ne fa nga nekk di liggéey bu fekkee da nga bëgg nit ñi di fa ñëw. Mm. bu fekkee waxuma la commerçant boo xam ne nag day xëy di jaay ay 100000 de man loolu waxuma kooku. koo xam ne day xëy di jaay ay millions ma jox la bayre boo xam ne sa place mm-hmm. da ngay am jaay ma jaay ma boo toqi wàcc tëj man képp ku ma sampal sa bayre ci sa biir place mm-hmm. nit ñi dinañ ne wóosi ba yaay sonn dem ñibbi mm-hmm. waaye toog jaayoo loolu amul loolu moom képp ku ñëw ci njaay man bu ma dugg ak yow sama leket gii sa biir hôtel wala sa biir centre commercial dina dox ba yow ci sa bopp da ngay mujj di sonn di ut ku la liggéey loolu moom fii nii la am ci jaay war a rabbi kon yaakaar naa képp ku ci bëgg a xam lu la leer nag buñ jokkoo li ma la wax boo ko gisoon ñëwal ma delloo la sa kon yaakaar naa loolu leer na yaa booy. incha allah loo xamante il faut ñu wax ci muy wàllum rab ndax boo xoolee jigéen ñu bëri ñu ngi toog sëy ñu rab moo <laughs> loolu dëgg la euh, ndax euh, di nga gis jigéen macha allah mu weer ni mel ni mu war a mel am li mu war a am tey fii ñi fi ñëw di ñaan lu jëkkër kenn xamul ni mu toll ndax jamono moo toll foofu ndax rab yàlla nañ ci yàlla musal daf lay dugg dangay gis jigéen ñoo xam ne dinañ nekk ak nit lu war a mu juróomi at buñ demee bu war a jubla ca farata pour wax ngoro rek mu tas da gis ñoo xam ne sax dañuy waxtaan ak góor ba jàpp bis mbir ma yàqu am na ñoo xam ne dañuy dem ba war leen a andil guru sax mbir ma far yàqu ndax rab moom moo koy waral parce que fii dangay gis jigéen ñoo xam te foo gis nag jigéen ñoo xam ne fu mu toog xol baa ngi tàng mën naa koy yeewu rek xol bi naqari te kenn du ko tooñ kenn du ko def dara mu yeewu xol bi tàng du bëgg a wax ak nit ñi day dugg néegam tëju wéet rek lay bëgg du bëgg a wax ak kenn parce que nit ñi sax dañuy dem ba dañ koy déranger wala bu nekkee di bëgganteeg nit mën na koo saaga léegi toogaat ba mu yàgg dire ci li mu ko waxoon loolu yëpp rab moom moo koy def ndax rab bu duggee ci doomu aadama sa xol bi fi nga war a bëggee nit ki lay jëm jël occupé ko ndax daf lay bëgg comme ni la nit ki bëggee waaye damay wax ne nag bu ko doyee incha allah bu nga ñëw ci njaay dañ lay dineel rab bi ba pare jox la loo xam ne rab dootul la mën a dugg ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ba tax na ngoro goo xam ne digaale nga ko nga ko ak doomu aadama incha allahu rabbi dina ko def comme ni nga xam ne yow. da gis fi góor ñoo xam ne dinañ am lu mat juróom-ñaari jabar loolu du jàmm waaye nag rab dafa nekk daanaka dañuy wax sax ñoom ñëpp a bon ndax benn baaxu ci ndax dinañ gis nit ku am wërsëg ñu topp ko muy feebar tey du liggéeyu suba loolu yëpp moo koy def ba ñàkk liggéeyam da gis ñoo xam ne ñu ngi woon ci liggéey yu baax yoo xam ne feebar tey ñàkk feebar suba loolu moom moo koy waral boo tax na seen liggéey yàqu te loolu yëpp moom moo koy def mm. dafa bari nag ay xeet ak ay façon ak nu ñuy dugge nit mm. loolu dafay am am na ñoo xam ne da di topp sax ci seen yaay waaye loolu bu mu ci di doon ñun dañ koy dindi moom set incha a rabi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. waaw yaakaar naa yaa booy loolu leer na incha allah. d'accord fa ñëw ci wàllu jinne. <laughs> sorewuñ loolu buñ ko fi naroon a taj tos taj maanaam buñ ko fi naroon a leeral nii pour mu leer day jël suñu émission parce que jege ñante nañ jege goo xam ne ñii ne nañ jinne rab ñii ne nañ rab mooy jinne waaye dafa am sew-sew yu ndaw yu ci nekk yoo xam ne loolu moom dinañ ko leeral spécial émission man ak yéen ñu toj ko leeral ko ba mu leer nit ñi xam ne képp koo xam ne gis nga li ma wax ci sa bopp nga xam ne lii man lii moo ma topp ko loolu dinaa ci ñëwaat yaa booy ak yow ñu leeral ko ba mu leer incha allah war bi ndax sinon tey dina jël suñu émission bi yëpp yaa booy <laughs> dëgg la am na solo macha allah naa ñu ngi fi nga xamante ne mooy parcelle mhm. seet si fii Ndiaye ah, Ndiaye Barxam macha allah mu nekk koo xam ne si wàllu euh, faj lay def mhm. ndax boo xoolee li ñu waxtaanam am na solo wàllu émirut bi da koy faj macha allah ak rab ak yeneen yi ci xam ne topp na ci mais Ndiaye dañuy ñëw ci li nga mooy wàllum actualité bi ku ne xam ne ne politique bi moom temps yi am Sonko te dil Sonko te dinañ Sonko dinañ élection wala duñ élection ak tant koo xam porteur de bu paree wëlbatiku nekk patriote te làqatuwuñ ci te nëbbatuwuñ ci gis nga nit ñi dañoo war a baxi doomu jaamur ci doomu aadama boo xam ne jël nga ko ba yóbbu ko ba mu ngi kaso terexut réew mi ci moom la ñuy wax man nit ñi daal war nañoo seetaat Ousmane Sonko ban façon nit la waaye koo xam ne dem nañ ba tëj nañ ko te terewul télé yi rajo yi ñëpp moom la ñuy waxtaane waaw kooku kon kooku nit ñi nañ def ci moom ndànk waaye damay wax ne nag nit ñi nañ waajal comme élection yi le 24 la fi mu ne amatut layam layami amatut gauche amatut droite lenn nag dinaa ko wax te yàgg naa ko wax gis nga élection yi ñu jëm nii képp koo xam ne yaa ngi nekk patriote dafa laaj surveillance bu baax a baax a baax gis nga nit ñi buñ dof dof la élection yi dañuy toog ba dégg ne gaa yi jàll na lañ ko feneen dafa war a am surveillance boo xam ne dafay mat sëkk sëkk sëkk sinon bu loolu dinañ am lu ñu naqari te lii man maa ko wax te bis ni ki tey laa koy wax gis nga élection yi buñ taxawut niñ ci war a taxawoo fépp foo xam ne war nañ fa am présentant ñu am ko fa ñu vérifier urne yi ñu xool ko xool bureau de vote yi taxawu ko buñ ko amut waa Pastef yi njëkk am lu leen naqari ndax li nga xam ne moom laa gis ñu nar ko ci buñ ci taxawut du leen neex kon nañ taxawu gën a defaru incha allahu rabbi ndax loolu ñu gën a may ndam bu baax a baax a baax ndax dafa laaj surveillance ndax bu fekkee ne leer na leer rek rek rek balaa deux heures ñu jël ñu jël réew mi loolu moom lu leer la moom loolu moom ñëpp a ko xam comme li ma waxoon élection guddi élection bëccëg élection weeru koor bu doon tabaski sax dinañ xoote ji ndax nit ñi dañoo sonn maanaam doomu aadama yi ñoo sonn te politiciens yi dañoo war a yërëm doomu aadama yi nit ñi sonn nañ dëkk bi métti na moo tax may wax ne tabaski sax buñ ñu ko defoon élection yi nit ñi dinañ wote rek ndax rek muccut nit ñi rek ndax nit ñi mën a nekk si jàmm yaabooy wàllum wàllum politique moom yaabooy nañ yem foofu ndax euh, boo ciy wax sax sa xol day jeex yàlla xam na ko ay ñu ñëw ci li nga xam mooy wàllum làmb Modou Lo combat taxaw na moom ak ki nga xamante ni mooy Siteu waaw làmb damay wax ne nag ñun nag waa parcelle euh, roi bi duñ ko gaaw a joxe noonu nag déedéet ñun dañuy noos ba ci kanam ak roi bi maanaam Siteu moom béy ba mu xam ne na pare de un ba vingt six la amat komba waaye du mooloo Lo kese la amat combat de am na nag lu sérieux ndax ñun pareeguñ pour joxe ruwaa bi te it gëmaguma ne dinañ ko joxe te it Siteu mii fi muy wax fi muy jaar jaar ba jël roi bi ci suñuy loxo loolu loolu dafa laaj lu bari te lim laaj man gëw ma ne am na ko jamono jii waaw nan na loolu ndax mootloo Lo doxee na doxeen boo xam ne jamono jii ñun liñ ciy ñaan yàlla pour doomu aadama ñëw fakastal ko du yomb du yomb de moo tax nag euh, lépp loo xam ne ñu ko doon def na nga ci gën a jàpp gën a teel a taxaw ci sarax yi gën a teel a taxaw ci ñaan yàlla yi pour incha allahu rabbi làmb ji ñun ak Siteu ndax ñun parcelle lañ dëkk ñun ak ñoom ñu ñëw jëlaat droit bi andiwaat ko biir parcelle noosaat ci ba sa kanam yaa booy ñun loolu lañ bëgg na waaw loolu ñun waaw xoolal wallaay na waajal boppam te xam na ñun roi bi moom bakkan lañ ci teg de te lu leen jaral nag jaral nañu lu ñu lu ko raw ñun ba mu desaat ci suñ biir parcelle gi incha allahu rabi ndax nag Sénégal nag parcelle la ko loolu nag damaa bëgg nit ñëpp xam ko kon incha allahu rabi ñun ñu ngi ciy waaj ay mbir yu doy waar ak ay sarax yu doy waar ak ay xalwa yu am solo rien que di ñaan yàlla móotloo ñu fekk loolu ci jàmm yàlla may ko lu sedd guy incha allahu rabi yaa bo yaakaar naa ne euh, foofu rek lañ ci yem incha allah euh, di wax nañ ne euh, dañuy tàggatoo.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 liggéey leeral yoon bi defal la wér kàttan na la macha allah bàyyi laa sa njaboot ak say famille lépp loo bëgg tamit suñu borom defal la ko ndax nit ku baax nga wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow bu baax a baax macha allah jërëjëf Ndiaye kontaan nañ merci beaucoup Aïcha nee naa la Aïcha moo nekkoon ci li nga xamante mooy caméra bi Aya moo nekkoon ci micro bi jaajëfal nañ ñëpp di wax ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf